daa xuyitum ndéem nuyoof na leen bi taxiyatin ci nuyoo fa xayoo na ngeen fay bi ak sana nu gën a rafet min haa ci niñ leen nuyooxee su ngeen ko mënut aw ruddooxaa wala ngeen delloo kem niñ leen nuyoo inna laaha naka yàlla kaana naka jekk xasiban dafay regle kuy regle la ala kulli seen ci lépp lëf nuyoo ak fay nuyoo sax dana ko regle ëllëg yowmal qiyaam ci seen diggante moo tax kon bu la nit ki nuyu nga ne bakkan la ma nuyoo du ko fay yow man xiyaam dana xam de danañ leen rek la loola de mbaa nit ki xoola téléphone nuyul ma diw sax te jottali woon nuyoo ba bu yow mal xiyaam danga ko rek leen yàlla wala bind leetar ji bind ceeb leetar ne nanga ma nuyul diw ci leetar bi nga bañ a nga ba nga jottali nuyoo ba waa jooju ba yow mal xiyaam danga ko rek leen yàlla kon nuyoo lu baax la lu ama am solo la dañ koy bàyyi xel euh, nuyoo dafay dàq mbañeel euh, Abdullah ibnu Salaam nee na bi ma ñëwee ci madinatul munawara fekk yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam toog xadis bi ma njëkk a mokkal ci moom maa ko dégg mu ne yaa ayuha afsu salaam wa atimu taam wa sillul arham wa sallu wa naasu niyaam wa sallu bi layli wa naasu niyaam mu ne maa dégg mu ne dee leen siiwal nuyoo nuyoo sax day day mbañeel mu ne tamit dee leen joxe ñam yéen ñi yàlla dox seen gannaaw jot seen loxo dee leen joxe ñam waaye maa ngi ñaan joxe ñam bii ci jamonoy ko maanaam corona bi baax na de waaye dañ ci dindi nañ ci dindi tiitaru bala ngaa tàmbalee joxe ñam yooya noona muy ceeb yaag kotol yaag bañ koy caméra ca télé ba na fekk nga ko sa dëkkandoor nga njëkkee ko ci sa mbokk dafa liste ñi bokk ak ñëpp ñëpp a néew doole jël leen ceeb ba mu doy nga door a nag génnee ceeb boo xam ne maa ngi koy door a génne ca télé ba nag te ba nga koy def bu ca tiitaru jublu ca ne damaa bëgg ñi am doole comme man roy ma ndax mu gën a yaatu waaye nag tabaarakallaahu léegi-léegi nga gis koo xam ne la muy joxe ci ay kotool lagar-lagari caméra ba dem fay nañ ma wane nga téye fii ma téye fii te waat naa ci yàlla ay ay ay mbokkam ña ngi koy saaga ay dëkkandooram ña ngi ko jéppi mën naa am soxnaam sax ma ko mere yoreel na ko dépense bu bëtu nit ñi tiitaru dafa leen a jaral lu ne ngay wane caméra maanaam te lañuy ñuy ba koy génnee ca surnaal ba mën naa am malaaka yi yore seen caméra ya jotaguñ image bi mën naa am dafa fulu mooy mala malaaka yi sax jotaguñ ko ndax malaaka yi bu ñu xoolee tiitaru nekk ci ngistal nekk ci wane ni nga toll nekk ci du jàll ndax foofu si ñoom seen caméra yi bokkul suñ caméra yi de suñ caméra yi nag moom mën naa jàll kon nañu bàyyi tiitaru yi am ci loo xamante ni yow ñi ngi koy jox sax ñëw ko moom yow gox bi nga nekk dañ la faa jiital askan wa moo fa teg li ngay joxe askan wee ko moom loo cay tiitaru jox nit ki alalam jërul wane jërul wane leen lu ci nekk nga koy wane nag kon nag nit ki mën naa dimbale nit te kenn du ko yëg yàlla fay ko wallahi mag ñi daan nañ dëkk ak nit gàddul ko dépense am bam mu deeta du ko xam dañ daan bàyyi rek xam kër gën na à peu près ñaataa fay war a fanaan ñu ne trente personnes ñu ne kooku kon par quinze jours mën nañoo lekk saakob ceeb bu ñu bàyyee ba guddi nit ñi daane saakob ceeb ci biir ci biir kër ga ak ak dugub ñu ne ah ñu ndekk ñu indil xéewal gi rek buñ demee balaa jeexaat ñu indiwaat bu waaj a deexee nag gisatuñ ceeb gisatuñ dugub ñu ne waaye ndekkee suñu dëkkandoor bi moo ko daan def bi mag ñi loolu jaamu nañ ci yàlla ba tàyy kon nañuy bàyyi tiitaru yi ak wane gi fu ne ngay wane di tiitaru te mën naa xam la ngay joxe sax ña ngi koy jox ñoo ko moom nga koy tiitaroo ci seen kaw te xam nga nit bëggul ko ko toroxal yow su fekkee bala ngaa teral nit ki jëlee ko ci jafe-jafe da ngay ñëw wane quartier bi wane nit ñi ñooña taxaw nga ne ñii dañoo néew doole moo tax maa ngi leen di dimbale ci ñi da nga leen a toroxal nit ki kenn ku sañoon bokk ca ñay joxe kenn bëggut te bokk ci ñu ñuy jox waaye nga ne ko bala ma laa jox nag danaa la pili danaa la publier ci internet yi ba ñëpp gis la publier la maanaam tamit ci ci télévision yi ba ñëpp gis la ñu wane nangam ak nangam ak nangam seen yaay ya taxaw fële di jël kotoon kenn bëggul ko ci yaayam yaayam toog fële di xëccoo saakob ceeb kenn bëggul ko ci yaayam kon bu la yàlla maye sa loxo jot sa gannaaw kee loxo jotul gannaawam defal ngir yàlla te bañ koo publier te yàlla tax boo ci jubloo na damaa bëgg ñu roy ma baax na yàlla xam na li ci biir ndax in tubdu sadaqaati fa naay maay maahiya wa in tuxfuuhaa wa tu'tuuha fuqaraa foo xayrun lakum nag kon loolu yëpp nañ ko ci bàyyi xel